waaw salaamaaleykum chers téléspectateurs de Joal Fadiouth TV avec Texcom TV Papa nuyu naa leen sama gars yi yéen Texcom sama xarit Mam Khadim ak sama caméraman bu rafet bii nii maa ngi leen di ziar eh, sama sister tamit eh, Texcom daa ñëw ànd ak benn présentatrice bu doy waar macha allah sister nuyu naa la. fay naa la voilà macha allah macha allah wala maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen dalal ak jàmm te nag ñoo ngi fii nii ci la lagune du cuuraay voilà. tey nag ñuy dalal ak sunu invité yu ñaawul yi macha allah ak sunu caméra yi man yi di leen a jaajëfal ñu daal di rek passé ci question yi incha allah. merci lagin a ngi borom lagin di cuuraay tey nag ñu ñëw ci inauguration fast food bi gën a rëy si Joal moom nag dañ koy bàyyi mu yaatal Omar nuyu nañ la. waaw mais gars yi maa ngi lay ziar ku ci nekk ci sa ak sa sant et puis euh, kontaan naa ci seen teewaay bu baax fii ci hôtel La Lagune donc di leen ñaanal seen télévision yi itam ca kaw ca kanam. yal na yàlla taxaw yalla na yàlla jàppale. macha Omar tay ñu ñëw fi ci euh, inauguration restaurant bi tay lan nga ñu mëna présenter lu spécial lo xamante ni wa dëkk bi mom lañuy xaar. en fait deux spécial moy fast food bi comme ni nga ko waxee sank jumloo parce que man dama nekk Joal nekk dom dëkk bi yàgg fi trop. donc euh, je pouvais def fi fast food depuis très longtemps mais boo gisee boobu def ma ko damay toog di xol xool na gaay yi liggéey mais man j'ai vu que côté fast food Joal dafa des quoi parce que Joal fast food guddi ba guddi la gars di lekk fast food donc ma xam ne loolu c'est pas bien pour la population donc ma créé fast food boo xamante ne c'est 24 boo ñëwee dinga lekk hamburger di nga lekk shawarma ma teg ci aussi àndal gars yi ay cak-cak foo nekk ci Joal boo sonnee dem port maa nga liggéey ba wàcc sa kër ngay toll woote 77 515 64 ñu ànd la ba sa kër jox li nga commandé muy pizza muy hamburger muy muy tacos loo commandé ñu la ko ba pare doo fay dara donc ma gis ne loolu innovation la pour Joal parce que bi ma gisoo ba tey musuma gis chaque chaque livraison à domicile à Joal donc euh, gis ma aussi fast food boo xamante ne encore day continuer dem 24 heures sur 24 waa Joal dañu am habitude di lekk wala pizza seulement guddi kese parce que tey jeex na moo tax ma andi leen fast food bu mucc ayib boo xamante ne ay matériel de qualité la andi lépp voilà daanaan dama koo signé tey dama fekk ñaari transfert xaw ma ñeenti transfert mooy dama jógee. <laughs> maa ngi dégg gars yi yooyu ñu ngi koy wax. mais xam nga liggéey business da ci am. Mhm. ay transfert ci ay employé de am. Mhm. man am naa sama employé yu nekkoon fii. Mhm. ay jëlan gars ñëw jël leen transfert leen. maa ngi dégg gars yi nga toog ñu naan euh, Ndeye Ndiaye Banaya dafa joge Sidi Diop dem ci waaye Seck. Sadio Mané dafa jógee euh, Bayern dem ci naar yi. ñu ne Seydou ak Diop am nañoo jógee Métis sama waxtu bi ñëw lagune donc mais c'est comme ça loolu dara neew ci mais mën a liggéey kese la business non la quoi donc euh, affaire business yow yaa ngeen dégg ñu né business amul mbokk amul dara quoi business c'est le business et puis ñun lagune ñu dañu liggéey quoi ñu dañu innover c'est pour la profession de Joal quoi en fait ñu faw ñu quoi faw ñu on travaille le plus fast food lepp lo xaaj fast food pizza shawarma hamburger tacos sandwich fataya lepp lo xaaj ci fast food am na fii wax naa ko sànq mën na la même ku amul temps ñëw sax da ngay toll sa kër oote 77 515 64 moto yi takk ànd na ko ba sa kër nga soog di fay te doo fay dara livraison gratuite te 24 heures 24 la à partir de midi boo ootee nga am hamburger loo bëgg nga am ko ma ne coono jax na ci Joal ci fast food. léegi yow lan ngay xaar ci restaurant Joal Fadiouth de fast food. bon en fait mais man gëm naa waa Joal wóorul naa leen parce que ñoom aussi dafa ñu seen xaalis lañu yore donc ñoom qualité la ñu wër donc bu ñu ñëwee fii gis ñu fi qualité.

gis moo di dox ñu yaakaar ne moo en fait moo ma rek sama ginnaaw lu bëri dama abi xam nga moo moo moom moom ma téye lu bare bari bari quoi maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla taxawul yàgg lépp lu muy sant yàlla may ko ko mais ñun ñii ñu ngi ñu ngi juum dafa ay erreur mais kii mooy pousse la gin moom mooy teg mooy cerveau bi donc moom nekk sa kàddu quoi <laughs> waaw ginnaaw bi ma sant yàlla maa leen nuyu waa Silva ak Texcom Bamba <laughs> di leen jaajëfal moom aw ma fayam comme ni ma waxee nii. Mhm. yàlla moo ñu boole. ñàgg mhm, mhm, ñàgg naa Joal ay at xaw ma la Omar. mais boo xoolee bi dalay xamante pendant trois ans quatre ans. mais ji na ma loo xam ne si ñi ma bokkal ndey ak baay sax jiwlu Omar maanaam man tey mën naa ne bu ma wàccoon tey si at li ma xamal ku ma bokkal ndey ak baay sax xamalu ma ko liggéey nag moo ñu boole ak business. day borom xol bu yaatu borom xol bu rafet digg yaatal and ñu and liggéey bu ko neexoon man na ko bañ a def parce que maa ngi moom bokku ñoon ay business mais si la ma xëj si wetam tax ma ñu and bokk liggéey li mu wax ni yëpp si moom la nekk maa ngi koy jamono moom na ma wax na ko moo tax jëf laa gën a mane quoi macha allah léegi yow en tant que xaritam nan nga tax nan nga fas yéene taxawee pour jàppale ko non taxaw moom si laa dëkk moom waaw taxaw moom isaa bi moom si laa dëkk moom xaa kay di ñaan yàlla projet yi gën a jëm si kanam rek li suñ dë li dëg mal kanam moom ñu yàggale ko yàlla mosal ñu si cat ak làmmiñ bàyyi ñu liggéey rek incha allah rabbi yàlla baax na Omar buñ jógee ci loolu buñ jógee ci transfert yi dañuy ñëw transfert damaa gis ñeneen ay ñoom jaañ ay tet ay leader ay madike ay sayer xam nga dama leen gis fii nii mu mel ni ñoom tamit say waay lañ am am nga yaakaar loo looy wax ñeneen ñi nga xamante ne nii si baguñ en fait man yàlla dafa ma dimbalee man Joal ama fekk kenn xaar ma yàlla ñëpp ñëpp ñëpp sama njiit lañu gis nga tey fii ay kilifa kaa fi nekk tey yaa ngi comprendre ay borom entreprise rek nga gis fi ay kilifa fi nekk lagi noonu mës mel ay ñoom jaañ sama njiit lañu xam nga ñoom baa ko web ñooñu mais ñëpp xam naa ne benn gang bi la ñëpp sama njiit lañu quoi la ñu daal saa yi la ñu Joal Fadiouth yàgg euh. dans deux mois glace mooy ñëw. glace mooy ñëw oh donc glace bi non bien sûr il faut ñu innover dañoo nekk en retard de trop ci côté restauration da ngay dégg ay gan ñu naan la bu ñëwee Joal à partir de 22 heures le lek mais on a na fi léegi donc dans deux mois dañu andi glace bi après. recrutement voilà donc déjà pour te dire vrai temb temb avant ma ib fast food j'avais seulement 6 employés mais il y 12 12 personnels pour rek am qualité a 12 a yi nga xamantene ay ak ay douze personnes ñu fi liggéey gis sama fast food

parce que booy toog nii yaakaar ne da nga am ay ay millions comme du noonu da ngay commencé ak tuuti ndax ay Jifa ay Bamba Tascom yàgg naa xam mais ñoom bu ñuy départ am ñoon li ma gis maa ngi gis tey le professionnalisme quoi donc ñoom dañoo rampé ndànk ndànk ndànk ndànk ba toog fi ñu tey donc maa ngi conseillé jeune Joal yëpp ak jeune Sénégal yëpp képp kuy liggéey même avec 50 000 mais boo gëmee sa bopp da ngay dem quoi donc euh, yàlla yàlla jàppale ñëpp. macha na vraiment dina sama jullit Allahumma amin amin amin iya, jaajëfal tamit sama mbokk naataango yi merci beaucoup Omar di leen di ziar ya, nag ya yegg eh? ya balaa ngeen dem ya, ngeen tëj yegg leen ci orchestre ci biir waaw ndongo ndongo day nong nong <laughs> waaw ziar waaw waa Texcom TV waa Jifa ñu am mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen tey jii ci euh, si Lagine ànd ak sama sister tamit siste lan ngay tëjee lan ngay wax téléspectateur u Texcom TV yi. waaw téléspectateur Texcom TV rek di leen di jaajëfal di am mbégte bu baax a baax ci teewlu gi ñu teewlu woon ci fi nga xam ne lañ leen teewloon tey muy la lagune du Cuuraay macha allah rek di leen jox di daje ba beneen yoon may jaafal may jaajëfal tamit. sama caméraman yi nga xamante ne macha allah dañoo professionnel ci li ñuy def. mais wax nañ la ne da nga sañse <laughs> da nga laal sa noir génn ak col bi chocolat tas yaakaaru sañ sa lu leer laa leen jàppale macha allah waaw bëgg naa leen bu baax a baax ñun yéen rek la ñuy topp waaw di leen di wax ne c'est Joal qui gagne vous êtes sur les chaînes leaders de la Petite Côte fii la baax fekk baax lu leer laa leen di tegal képp ku bëgg image bu baax ñëwal Joal képp ku bëgg ambiance ñun fu ne la ñuy fëlee foo dem fekk ñu fa ñoo nga foofu tamit lii la yàlla dogal ñu leen di bégee sama xarit

la Mustafa muy doon bu baax wóyal. ana bëri ko ne muy doon bu fekkal ndeyam